إلا أن يكون متيما ألي فقرا من بين نبي مهيما أبيت بليل تم زهران مرشدا باينس ndigalu cheikh شيخ محمد seydi alin cisse teewaayu ah, Baye Cissé mu Cheikh Mahi Cissé Pape Maysa Diop di leen woo ci bés bu muy njukkal Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass daal di koy duppee takkusaanu Baye Niass ah, bés bi nag dinañu ko tëralee ci anam bi bu juróom-ñetti waxtu ci suba jotee jàpp benn waxtu ci bëccëg dinañu jàng arxuraan daal di koy nag jagleel baayam bu tedd ba di rahmatulahi alayhi Adama Diop bu ñaari waxtu ci bëccëg jotee ñu daal di noppalu xewlu ñeenti waxtu ci bëccëg ñu di dalal gan yi juróomi waxtu ci ngoon ñu daal di nag xat mu lii di arxuraan bi waaye tamit daal di ciy toftal ay zikkar ki koy animé di Moustapha Ba Cheikh Madiara Niane Baye Male Zakir Cissé Dia ak Pape Gambien bés bi nag Pape Maysa Diop daal di koy darajale kii di Mamadou Abid Fallou Baye Ami Diop bu Pape Beydi Diop Adja Salamou Baye Ndeye Ami Diop journaliste waaye Pape Meissa Diop ne dina ci rendre hommage ñaar ñu sori woon lool ci dundam di Birane Niass bu ci Dakar premier coordonnateur bu Saloum Actu ak ki nga xamante ni mooy Ndeye Amy Mbodj bëgg Baye Niass Pape Meissa Diop di woo mbokk xarit àndandoo waaye fàttewul benn yoon ñi di waa mouvement 100 pour Ndar bu ndaw ak ñi di compagnon fidèle bu Ndar bu ndaw yéen ñëpp ñu ngi leen di woo ci bisu ko takkusaanu Mawlana Cheikh al Islam altine ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars atum 2022 ويبقى رسولا دائما ومؤازما فنشعته كالدية الحال